tàllal leen loxo yi gën di mindeef daara way gën di mindeef daara jinjin leen aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uuzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'aati a'maalina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد على من قال بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اعني سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokki jullit yi mbokki téléspectateur u fkr 92 point com dikkat nañu fi ak yéen ci seen émission bi tudd ma sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allah tabaarakallah tey nag ñu bëggoon waxtaan ak yéen ci salaatu ala nabi muy julli bi ngay julli ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wa mu nekk jaamu yàlla bu doy jaamu yàlla bu yéeme yàlla xamal ñu ko ci téereem bu tedd bi di alquranul karim bismillahi rahmaani rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha wa sallimu taslima allahu akbar xam nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi moo ci jàmm yàlla boo xam ne amul fu muy bëgg amul fu muy bañ amul lu muy bëgg amul lu muy bañ amul sens interdit c'est la seule prière qui n'a pas de condition ni lieu fu la neex defal salatu ala nabi waxtu wu neex defal salatu ala nabi même bu fekkente ne ànduloo ak laab mën nga def salaatu ala nabi parce que dootul yow ci ki nga koy jëmale ci moom la kookoo laab kookoo tedd kookoo sell muy seydil awalin wal axirin xam nga bu yàlla ne man ak samay malaak man ak samay malaak ñu ngi julli ci seydina muhammad ne yéen jullit ñi par force julli leen ci rasulillahi alayhi salaatu wasalaam allahu akbar man ak samay malaaka julli ñu ngi julli ci Seydina Muhammad xam nga yàlla malaaka yi sakkan nañu façon sakkan boo xam ne bu yàlla ne woon malaaka yi dem leen ci kaw suuf kenn ku ne indil ma benn pepp suuf genn wàllu malaaka yi du ñu am chettëtëtëp kon nu ñu war a toll kon nan lañu ñu war a toll ci kaw suuf kenn ku ne indil ma benn pepp suuf genn wàll malaaka yi du ñu am suuf kon malaaka yi nu ñu war a toll nga dégg ci ni sakkan nañu lool malaaka yi bari nañu lool ba jéggi daya xoola beytil maamuur sayyidina Muhammad mi ñuy xamal ne bés bu yàlla sàkk soixante-dix mille malaaka dina ko tawaaf baytul maamour soixante dix mille malaaka dina ko tawaaf te bu ñu demee yeneen malaaka ñëwaat te it te te ku dem malaaka bu dem dootoo dellu si waat allahu akbar kon yàlla ñaata malaaka la am ñaata malaaka la yàlla bind jalla jalaaluhu azzakama kon salaatu ala nabi soo bëggee sunu borom jox la taar taar julli ci Seydina Muhammad soo bëggee sunu borom def ci yow mbaax jullil ci rasulillahi soo bëggee am kanam gu leer jullil ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam soo bëggee bañ di banque di banque ci sayyidina muhammad soo bëggee gudd fan jullil ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam soo bëggee deewaaleeg sa imaan jullil ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu wa sallam allahu akbar julli ci Moustapha rek a wóor julli ci sallallahu alayhi wa inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi wa taslima dafa am benn waay bu àndoon di dem màkkatal mukarama ñu ñëw ba ci diggu yoon bi bu njëkk ba xam ngeen ne avion amul woon oto amul woon saxaar amul woon tabaarakala bu njëkk ba ñoo ngi daan tukkee ay gëléem ak i fas ndeysaan mu ànd ak baay bi di dem màkkatal mukarama ñu ñëw ba ci diggu yoon bi ci àll bi ndeysaan day bi feebar feebar lool mu jaxle lool di yëkkatee ko tëral ndeysaan ak a ñeewante ñu jëkki jékki rek baay bi nekk ci sukuraat allahu akbar jékki-jékki baay bi génn àddina ci àll bi mu jaxle lool ne fu ma jëm tey rek la ma yàlla doon xaar man fan laa jëm tey la ma yàlla doon xaar fan laa jëm allahu akbar fan laa jëm tey la ma yàlla doon xaar di ànd ak sama papa di dem màkkatal mu karama sama bàyyi dee ci àll bi ñu toog tuuti rek ndeysaan kanamu baay bi soppaliku nekk kanamu mbaam laa ilaha illallah muhammad rasulullah soppaleku kanamu mbaam mu jaxle mu ne mbaadu sama baay dafa nar a dem safara mbaadu sama baay dafa nar a dem safara allahu akbar jaaxle dikkal na ko baay bi dee na yamul ci baay bi dee sunu borom soppi na kanamu baay bi def ko kanamu mbaam tiit na jaaxle na xamul fu mu jëm xamul lu muy def ndeysaan noonu bu doon yëkkatee baay bi ak a tëral coono jàpp ko mu jàppanteek nelaw ba mu jàppanteek nelaw jékki-jékki rek ci biir nelaw yi nelaw yu xóot ndax dafa sonn gént lu mu gént waa ju rafeta rafeta rafet musul gis ku mel noonu ci wàllu taar war fas wu rafet a rafet a rafet musul gis fas wu mel noonu ci wàllu taar weex taal sëq ndeysaan nga jaa ngi rafet lool fas waa ngi rafet lool ci biir gént gi waa jaa ngi war fas di dox ndànk di ñëw ci moom ci biir gént gi di dox ndànk di ñëw ci moom di dox ndànk di jëw ci moom naka lay gën a yegg si taaruwaa di gën a yéeme taaruwaa ji di gën a yokk ànd ak xet gu neex goo xam ne musul jànkonte xet googu ci kaw suuf ndax neexaay mu ñëw ne ndeysaan waa ji ne ko jàpp loxo nuyonteeg moom ci biir gént gi waa ji cëppeel fas wi mu taxaw di ko xool rek ne ñaadam ñaadam ñaadam ci biir gént gi ñëw ba tiim baay bi di ñaan di tëfli di ñaan di tëfli ci baay bi di ñaan di tëfli ci bopp baay bi ci biir gént gi ba tey di ñaan di tëfli di ñaan di tëfli jékki-jékki kanamu baay bi ni mu meloon ci wàllu mbaam kanamu mbaam bi nga xamante ni moo nekkoon ca baay ba kanam gi jékki-jékki soppeeku sunu boroom soppi kanamu mbaam gi mu dàq kanam gu njëkk ga leer nañ weextal nga gis baay bi di nes na si ci biir gént gi ci biir gént gi ndeysaan jékki-jékki waa ji jóg bëgg war a fasam pour dem ci biir gént gi mën ko déet bul dem teraanga gu rëy gi nga ma defar mbaax gi nga ma defar yiw gi nga ma defal njekk gii nga ma defal yow bëgg naa xamante yow yaay kan sama bay bi génn àddina kanam gi soppeeku kanam mbaam nga ñëw ñaanalal ma ko ba kanam gi dàq sax bu njëkk ba bii teraanga munoo demee noonu yow yaay kan mu ne ko may muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cettt may muhammadu rasulullah allahu akbar mu ni ko lan moo tax ci biir gént gi de lan moo tax sama baay bi kanamam gi soppeeku kanamu mbaam ak lan moo tax nga ñëw ñaanalal ma ko ba kanamu mbaam gi soppeeku daq sax bu njëkk ba ñaari laaj la yooyu daal laa la bëggoon laaj mu ne ko li tax sa kanamu baay bi soppeeku kanamu mbaam mooy dafa daan dundee riiba riiba usure usure mu ne ko nag li tax ma ñëw toog fii sug ko ci kanamam di ko ñaanal ba kanam gi soppeeku dàq na woon benn salaatu ala nabi la ko yàlla nangul laa ilaha illallah muhammadu benn salaatu ala nabi la ko yàlla nangul allahu akbar benn salaatu ala nabi la ko yàlla nangul ëskay xolo ku naroon dem safara daan dundi riba na muhammad ñëw ñaanal la alayhi salaatu wasalaam yàlla nangu ñaan gi ndax benn saatu ala nabi boo xam ne yaa ngi ko defoon ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo la dimbali njot la allahu akbar waa ji jooy ndeysaan ci biir gént gi jooy ne ko Seydina Muhammad dëgg dëgg jërëjëf waa ji ne tërët yeewu ba mu yeewoo ma ngay jubali ca baay ba ndax film bi mu gis ci gént gi ma ngay seet ndax loolu nekk naam am déet mu ñëw ndeysaan tiim baay bi ba mu tiimee baay bi xool effectivement naka sallallahu alayhi wa sallam ñaanalee woon kanam gi weex tal leer nañ mu fekkee noonu baay bi allahu akbar allahu akbar xel mi daal lool moo tax salaatu ala nabi gaa ñi nañ ci téye nañ ci téye boo amee njàpp bala neexee defal boo ñàkkee njàpp bu la neexee defal boo gisee deret yow jigéen bu la neexee defal boo ñàkkee gis deret bu la neexee defal boo majeuree defal soo mineuree defal foo ne jullil ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yonent yi kenn ku ne nekk nga ci situation kenn moo la dimbali kenn moo la jàppale ndax saatu ala nabi muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa kenn ku ba nga nekk ci situation kenn la dimbali muy sallallahu alayhi wa xolo ndeysaan xoolal wa naziqaati xarqan wa naashitaati nashtan ñi nga xamante ne sunu borom dafay rocc seen ruu di ko bif di ko bif mooy yéeféeri ñooñu mooy ñi nga xamante ne daawuñu julli ci Seydina Muhammad ñi nga xamante ne dañuy julli ci rasulullah dañuy dee dee boo xam ne dee bu sedd lay doon dee bu sedd lay doon tabaarakallah kon salaatu ala nabi mi ngi noonu waxtaan yi waxtaanu salaatu ala nabi la tabaarakallah ne ko ñëpp def ne ko ñëpp bareel tabaarakallah seen mbokk seen xarit seen soppe xaadim seen moo doon defal seen émission maa sopp rasulillahi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaaro way gën ji mindeef jaaro